diagnostiqué euh, positif moom la ñu daal di nemmeeku ci mim réew lim bi di yokku ndax juróom-ñetti fukk euh, juróom-ñaar mooy cas yu bees yi daal di nag am tey jile cas communautaire yi nag ne ñu benn bi la euh, moo ko daal nag indi ci ñaari tali ñaari cas yu grave nag yoo xam ne daal nañ koy nemmeeku jamono jile ñu ngi réanimation dinañ ci daal di nag jukki cas ba amoon ca Sédhiou nag di cas communautaire bi bokk na ci li gën a lawal mbir mi jamono ji sax diwaan boobu war a toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom ki ak directrice bi ñu dénk wàllu santé ci ndorteelu xibaar yi lay doon ñaar fukk ak juróomi cas infection yi nga xam ne nemmeeku nañ ko bàyyi ko nag ci kookee nga xam ne ki ko ko fa mu ko jële eh, xamuñu ko ca diwaanu nag Sédhiou tax na nag mbir mi di law askan wa nag amee tiitaange jamono ci lee ci biir xibaar yi ba tey dinañ jokkoo ji ak eh, Moussa Dramé ponk lay doon wax sa xalaat niñ koy amale saa su ne ñaari jigéen ñu won noon lor jamono ci lee ñu amoon coronavirus bi ca hôpital foofu ca Fann eh, nemmeeku nañu leen ba jamono ji daal jàpp nañu ne seen état santé daal nañ am ak dal ak seen i nag ëmb dara jotu ko dinañ ci daal di jukki ak euh, kiy jiite sage yu Sénégal ci biir xibaar yi lay doon matuwaay yi ñu ciy daal di nag jël ak law bi mbir mi di law ndax juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay test yu positif jamono jile euh, lim gi daanaka mu gën euh, jotuñu ko woon nag am fii ci mim réew ci mbasub Covid 19 bi mbir mi nag gi gën di law ba daal di jege li nga xam ne nag mooy junnikaay yi na mu ko amee ci réew la. Afrique yu bari njàngat li dinañ ci daal di dikk ci biir xibaar yi lay doon eh, dinañu àddu itam jëme ci séddale li nga xam ne nag mooy aide alimentaire d'urgence bi foofu ca commune bu ginnaaw raay lu war a toll ci ñetti junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar ci ay ménages yu ñu ne nag dinañ leen daal di jébbal eh, ndimbal googee ci teewaayu ministre bi ñu denk wàll wi di Mansour Faye Moussa Thiam toppal nañ ko dinañ ci daal di dikk eh, ci wax sa xalaat itam dina ci daal di nag bokk dem beeg dikk moto Jakarta yi dinañ ci daal di jukki entreprise yi xam seeni i payoor yi yëpp ci wax sa xalaat bi dinañ ko ciy daal di nag dëxëñ ngeen mën ci àddu ci kanam lay doon toftal ci yeneen xibaar laata ñuy dakk ubbi antenne bi Alassane Wade moo ne ci sottandikukaay bi faram-fàcce gi nes gis lay doon. Adama Ndione ci kàddu gii li aju nag ci mbasu Covid 19 bi lañ koy daal di nag doore ak lim bi gën rek di yokk ndax dem na ba ci juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak eh, ñett eh, cas yoo xam ne positif na ne ñu nag juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar ay cas yu bees lañu ci talaata jile ne ñu sax juróom fukk ak ay cas contact la yu ñu doon topp kenn ki nag la gis ne daal fa mu koo jëlee kenn xamu ko ñaari tali la daal di nag fekk eh, baax am na ñaari cas yoo xam ne yu garaaw lañu jamono ji nag. ñu ngi ca réanimation ca hôpital euh, bu euh, Fann Sédhiou nag ñoo amee tiitaange bi ndax cas communautaire ba mu fa nemmeeku gis nañ ne daal wàll na ko ñaar fukk ak juróom ci ay nag euh, contact loolu la Marie Xemes Ngom di directrice bu santé daal di xamle ñu déglu ko ci micro Sud FM. ci talaata tey bii ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril ministère de la santé et l'action sociale jot na résultat yii ma leen di bëgg a jox. ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett test yi nga xam ne def nañ ko juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar dellu si nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu mun nañu wax ne juróom-ñetti fukk yi ak juróom-benn moom la ñuy wax contact moom la ñuy di leen topp ci suñu bërëbu liggéeyukaay yi mun nañu rekk wax leen ne. ki nga xamante ne moom moo am tey doomu jàngoro yu fii ci Sédhiou dem na ba wàll ñaar fukk ak juróom loolu mooy wane ne wàllante mbas mi ñuy wax Covid 19 da ko gaaw lool am na benn boo xamante ne moom la wax cas communautaire mooy bi nga xamante ne kenn xamul ku ko ko wàll damay fàttaliwaat ne moom mooy tax mbas mi di law nu gën a gaawee ñu ko gis fii ci dakaar ci bërëb bi ñaan ñaari tali. ci malaat yi nga xamante ñu ngi tëdd ci bërëbu fajukaay yi fukk ak ñaar ci ñoom bi ñu leen saytoo gis nañ ne amatuñu doomu jàngoro ji wér nañu ñaari cas grave ñu ngi tëdd ci service réanimation yi ci fi ñuy wax hôpital Fann ak hôpital principal ñeneen ñi nga xamante ñoo fa des di malade seen wér gu yaram mu ngi am tan ci bésu tey bii dalee ko ba mbas mi Covid 19 duggee ci biir senegal ba léegi. ñu ngi natt juróom-ñett fukk ak euh, ñaar fukk ak ñett yoo xamante ne dañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn wër nañu juróom-ñeent faatu nañu benn delloo nañ ko ci dëkk bi nga xamante ne fa la jóge woon prix des fii ñu ngi toll ci juróomi téeméer. ak fukk ak juróom-ñaar yi nga xamante ne ñu ngi leen di faj ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi doolee di ñaax askan wi ngir ñu gën a farloo dig yi ngeen xamante ne jox leen leen ko loolu mooy tere mbas mi wal kenn du ko fi yoreeti ci digtal yooyu ñu ne nañ ci gën a seetlu di topp ñi nga xamante ne mën lañ wax couche vulnérable maanaam xale yu ndaw yi suñu mag ñi nga xam ne ñoo nekk ak ñun jigéenu warul yi mais également ñuy gën di xool di saytu ñi nga xamante ne dañuy dox ak doomu jàngoro dañuy dox ak feebar feebar yooyu nag gën nañ cee gis ñu am jabet ñi nga xam ne dañoo am problème mu tension moo xam tension bi yéeg wala tension bi wàcc mais également ñi nga xam ne dañu am insuffisance rénale aiguë ba neen di yóbbu dialyse mais wax nañ tamit ne ñu gën a xool tamit ñi nga xamante ne dañoo ànd ak li ñuy wax feebar deret rawatina li ñuy wax drépanocytose waaw euh, ñaar fukk kon nag juróom yooyu mu daal di lim ne ñoo daldi di nag euh, moom la ñu wàll lii di nag coronavirus bi foofu ca Sédhiou euh, mu nekk transmission communautaire mbir mi nag la muy lawee moo daal di nag gaaw ba tax askan wa daal di amee tiitaange malade bi ak ña ko daal di nag jege ci dëkk boobu di noo ba ñoom nag ñu ngay daal di nag circuler ba tax nag ñu jàpp ne lépp lu aju ci wàllu xeex bi faaw ñu gën cee daal di nag fagarlu daldi di ci nag taxaw ñi dem dem ba Sédhiou fekki Moussa Dramé. ay nit yi ñu jotee ràññee ñoo xam ne dañoo jote laale koo xam ne it moom moo fi njëkk dugal mbas mi la di coronavirus fi ci diwaanu Sédhiou fekk baax ci Mankonomba naka tey gannaaw bu ñu seen yaram ne ñuy tutal na ci ñaar fukki nit ak juróom ñoo xam ne ñoom la wàll wopp bi lay fi ci diwaanu Sédhiou li ni mel tax na it bu ñu bari am ci njaaxare lool. waaw jaaxle naa trop trop trop euh, jaaxle naa trop parce que booy na ma ni am nañ yeneen contact ailleurs ji. feebar bi daal moom mi ngi noonu daal waaw mi ngi noonu man munu munu ma wax dara daal parce que tellement affaire bi daf ma dépassé daal. ñenn ñi di ci àddu am ci tontu bu leer naka la waa ji def bàyyi ko ci Louga ñëw ba ci diwaanu Sédhiou amu ci benn tiitaange. moo li ma ñëwee Louga ma c'est ça que j'ai pas compris dafa ñëw Louga. Avec combien de régions entre Sédou, et Louga Combien de régions C'est pas possible. Il est venu sans e, e, être inquiété. Vraiment, ça, ci suba fii ci diwaanu seju bare na ngelaw boo xam ne moom mooy upp di yëkkati poussière fu nekk ci tali ya barewul askan yoo xam ne ñoom ñoo ciy daagu ndax it njàqare boo xam ne moo fi amee loolee li ko wund mboot na rek ñoo xam ne ñoom ñoo laa lekk waa ji lay nee it ñooñee am na ñuy jokkalal ba tax na tey jii lee xel yu bare dem ci fànn boobule waaye it toll nii lu jëm ci wàllu matukaay ak tëralin yoo xam ne moom la ñu war a jël daanaka dafa desandi lool ndax ndax it li ko dalee démb nag bésum jëkk boo xam ne moom lañ demee covid 19 fii ci diwaanu Sédhiou kenn mënul fexe ba jokkoo ñoom ci lu jëm ci wàllu woowu lay ci jamono jooje fekk ne it woy malade bii lay ak it ñu bokkal ci Mankonomba ñu bari tam lañ di def ay vidéo ak audio ci réseaux sociaux yi di xamal ne it luñ leen wax nii ab jiiñ la dara amu ci ba dara booloo jeex ba tax na it ñu war ci addu bu baax indi ci yeete bu ci war ndax it fi mu toll yu bari yoo xam ne dañ koy fësal dafay alotiku askan yu bari yokk amoon teg tëralin yoo xam ne moom la ñu war a def ngir baare tali bi Covid ci tam ko ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé ñu daal di euh, ñëw ci ñaari jigéen yi nga xam ne nag euh, dañoo sax ëmboon feebaru coronavirus bi daf leen daal di laal hôpital Fann lañ leen di rek euh, toppatoo ñoom ñaar nag nee ñu jamono ji lañ doon jot ci ñoom am na ak dal seen wér gu yaram ak la ñu daal di nag ëmb am nañ ci daal di yaakaar ba tax nag ñu jàpp jigéen ñi amee jël matuwaay bu ñu sukkandikoo ci njiital euh, jigéenu sage-femme yi ci senegal di Ndeye Bigué Bambou ñu déglu ko ak euh, Adja Ndeye Khady Diop waaw ci lu leer am nañ ci ñaari kaa yoo xamee ni euh, ca jamono yee weesu kenn ki ëmb bu ndaw la amoon kenn ki ëmb bi presque jub na juróom-ñetti weer donc yoo xamee ni feebru jàngoro jàngoro coronavirus daf leen daloon te loolu dafay dafay tax ñu gën takkuwaat ba dëgër xam ni. coronavirus bàyyiwu fi jigéen bi wérul coronavirus bàyyiwul kiy matu wuy wasin bàyyiwul tamit kiy nàmpal ba tax na en plus de lépp lu ñu doon def ci mbir mi jàppale leen pour que ndeeti ndey ak doom wàññeeku dañu gën a taxawaat tamit pour fexe ba nga xamee ni dinañ leen mën a aar ci coronavirus boobu waaye du tere nag ñu dem ñu dem kër docteur di def seen visite yi. Mm-hmm. comme ni ma ko waxee woon te di dem di matu ji ci biir di wasini ci biir maternité yi. am ngeen xibaar ci seen ëmb yooyu ñoom fu mu mujj ñi ngeeg moom wala dafa mujj tuuxu. macha allah yàlla def na ci jàmm parce que kenn na lu ñuy wax menace. xaw na woon nii mais loolu li koy indi xam nga tàngaayu yaram déjà fièvre dafay tax mën na indi ay ay ay ay euh, avortement mën na indi accousement prématuré wala yooyu donc mais yàlla baax na ba nga xam ni faj bi euh, jaar na yoon ba nga xam ni ñooñu seen ëmb yaa ngi continuer wér nañu ba ñu ngi ñibbi seen kër ñu daal di ñëw ci juróom-ñetti fukk ak euh, juróom-ñaar ci ay cas yu bees moom la ñu nemmeeku mooy li mu tey gi muy record nag ndax musuta am ba tax na nag ñu jàpp ne feebar bi ni muy lawee mu ngay gën di yokku rythme bi senegal di demee nag daanaka léegi mu am junni ni ko réew yu bari ci laayu l'Afrique yi daal di amee Adja Ndeye Marème ci Afrique tey ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril am na ci lu tollook junni yu tegal ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari nit yoo xam ne ñàkk nañu seen bakken ci feebar bi di coronavirus mu am ci lu tollook fanweeri junni ak ñett yu tegal ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti nit yoo xam ne am nañu euh, feebar bi lu weesu junni daal di ci wér fii ci biir Sénégal nag bu ñu gisee ni feebar bi di wéy mën nañu wax ne li ci des daal ñu am ci lu tollook junni kaa moom bëreetul ndaxte fu mu nekk nii tey ji ñu ngi toll euh, ci juróom téeméeri kaa yu tegal euh, ñaar fukk ak ñett tiit ci biir Afrique bëri na sax ay réew yoo xam ne ñoom weesu nañu junni ka li ni mel moom moo am fa li nga xam ne moom mooy ca Algérie foofu am na ci lu tolloog ñetti junni yu tegal juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñaari mu am ci ñoom ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaar ñoo xam ne dañ cey ñàkk seen bakken Maroc foofu moom ci bésub tey daal di nañuy enregistré ci lu tolloog ñeenti junni yu tegal téeméer ak ñaar fukki ka mu am téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ñu ci ñàkk seen bakken Égypte foofu nga xam ne fa la feebar bi njëkk feeñee fii ci biir Afrique foofu moom ñoom fu mu nekk nii nag ñu ngi toll eh, ci ñeenti junni yu tegal juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaari cas ci Afrique du Sud moom na ci gox yi nga xam ne sax eh, fa feebar bi gën a lëmbee foofu sax la ëpp ay cas yu ñu fa nemmeeku naata ñu ngi toll ci ñeenti junni yu tegal juróom téeméer ak juróom-ñett fukk ak mu am ci lu tollook eh, juróom-ñeent fukki nit yoo xam ne daal nañ ci ñàkk seen ba bakkan Cameroun tamit bokk na ci dëkk yi nga xam ne feebar ba mag fay law ñoom am nañu fu mu nekk nii ci lu tolloog junni yu tegal juróom-ñaar téeméer ak juróomi kaa mu am ci lu tolloog juróom fukk ak juróom-ñetti nit yu fa ñàkk seen euh, bakken yeneen dëkk tamit daal dina ñuy weesu euh, baaru junni kaa yi ñu ràññee ci dëkk yu mel nii ni euh, Ghana ko Guinée Conakry ak tamit Côte d'Ivoire ñu gis ne ci li ëpp ci dëkk yooyu ngir fexe nag ba xeex ci ni mu waree ak feebar bi di coronavirus ñoom de dañoo def lu ñuy tuddee confinement total maanaam dafa am yenn ci ay gox yoo a kenn du dem kenn du dikk wante dafa mel ni nag ne stratégie boobu de fii ci biir Sénégal moom xalaataguñ ko. guñu ko waaye nag la xalaat mooy ñi nga xam ne dañuy def ay audio di enregistré di wéet di feebaru coronavirus bi ca Kaolack seen ñaareelu cas am na ña ko fa def ba tax gouverneur ba mu ngay daal di nag euh, artu am na sax euh, kenn koo xam ne teg nañ ko ci loxo gouverneur ne képp ku ko defati dinañ ñi teg ay daan ci yow du yàgg sax dinañ ko présenté ci kanamu nag procureur dañ ci teelu kii di gouverneur bu Kaolack di Alioune Badara Mbengue ci micro ah, da nga wax loolu leer. boo dégloo audio bi moom moo juddale ñoo defoon luy ñoo àndoon fee ñoo dëkkoon fii tout ça c'est faux dara du ci dëkk daara la ci xam dem na sax banaan waa ji woon nañ ko nekku fi woon ak nangam nangam daara la ci xamul waa jooju ba léegi ba bi affaire bi am mi ngi doon liggéey fii dans une banque de la place donc loolu mu wax noonu dara leeru ko ci dama ci profité rek pour wax ne euh, vraiment nañuy def attention ci génn audio yu nga xam ne nii pour faire le buzz rek quoi di wax lu nga xam ne dara leeru la surtout lu nga xam ne nii c'est aussi sérieux donc ñun yooyu nekk noonu vraiment tal nañ leneen lu may di def ay ojo di wax loo xamul ci profité pour vraiment ne ñoom ñëpp ñi koy def nañu def attention dootuñ toléré ci ku nga xam ne ni dana am cas yu mel nii nga génn si audio di ci wax lu nga xam ne du dëgg ku ko ci defati danañ pour danañ remonter audio yi ba xam l'auteur il sera poursuivi parce que audio bii boo ko seetloo ba seetlu waa ji dafa bëgg a nelawloo nit ñi on la euh, ñu fàttali yëpp ci wax sa xalaat la xeet yooyu doxalin yi ak naka la leen ca man rek fekk euh, ndorteelu li nga xam ne nag mooy séddale aide alimentaire yi ci njaboot yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ginnaaw raay sud ak yéen la ñu daal di doore nag mbir moomu ci teewaayu ministre bi ñu dénk euh, wàll wi di Mansour Faye jébbal na ay kit ak yéen ci ay jumtuwaay njaboot yooyu le ba tax mu jàpp ne sax loolu dafa nekk mbir moo xam ne communes yi ci des yëpp dañ ko war bii fa yëf yi amee ñu fekki fa Alaaji Moussa Thiam ay bon enlèvement si seeni loxo ñi nga xam ni nag ñoo war a jot ndimbal gi ñoo ngi toog ci ay sièges yoo xam ne daanaka dandoo nañu lu toll ni lu ëpp benn mètre ngir respecter distanciation sociale bi ñoo ngi ci biir école appic ci ci gina Guinaw Rail Sud étape bu njëkk ci ci li nga xam ni noonu la ñu war a distribuer aide alimentaire bi jëmale ko ci ménage yi nga xam ni daal Covid bi dalee na xaw a sonal fii nag ñetti junni ak ñaari téeméer ak juróomi ménage dañuy jot ci ndimbal bi loolee tukki tukkee ci Abdoulaye Diop bi nga xam ne moo di maire commune bi 3207 lañu indi loolu nag neex na expliqué 1091 bi mooy ñi nekk ci RNU bi waaye mooy li li ñu yokkal kii nag bokk na ci ñu jot ndimbal moomee nag menuisier métallique la jàpp na ni jamono ji liggéeyam doxul dara moomee nag jàpp na ni lii xewal la ndaxte dana ci mën a dund ab diir amuñu salaire amuñu dara te temps yi liggéey amuñu nga toog sa atelier ñetti ñeenti fan doo dara bu la joxee liggéey baax dinañ mën dimbale daal ni ki mel na soxna si nga xam ni tamit daa jógee foofee ca quartier Aliou Ndao xamle tàyyiwul di ñaan saa su ne jëmale ko ci njiitu réew mi ñu ngi koy gërëm baax taxawaayam rafet na man da dañoo ñëw rek après ñu jël jël ma daan jox ma sama jël sama dentité léegi ñun ma dañu bind ma après bi ñu ma bindee rek jël sama dentité daan bind sama numéro téléphone ak yëpp jox loolu rek lañ ma jëlee ndax ñun moom néew di doole lañ ku ñu jàppale ku nekk rek dañ ko bu baax yal na ko yàlla jàppale foofee ca commune yeen mu doon ñaari étape fii lu toll ni junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett borom kër la ñu jot a ciblé loolee ki ko xamle di góor gi siis bi nga xam ni moo di meeru commune bi. commune yeen jot nañu junni. ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom benni borom kër borom kër nag man nekk jigéen man nekk ku góor yeewoo nag ci commune bi am mbégte lool waa ñaay xëy waa cinq ak fii la moom macha allah man maay tudd Ndeye Sow dëkk affaire wax dëgg yàlla kontaan nañ si Macky Sall bu baax dimbali na njaboot ah dimbal bi la wax dëgg yàlla baax na ñoo ngi sant Macky Sall ak ministre bi ministre développement communautaire di won ni lu tax nguur gi daal di taamu joxe ndimbal jaarale ko ci lekk mu ngi ciy indi ay leeral boo ko joxee koppar bi xëy dugal ko fu mu ko dugal danaam dugal ci leen dépense wala def ci ay dépense inutile mais lii nga xam ne dund la bu duggee ci këram dund lay nekk. ministre Mansour Faye gannaaw ba mu rafet loo bu baax li nga xam ni moo di processus bu mu nemmeeku ci Pikine ginnaaw raay ak foofee ci commune bu yenn nag di sàkku ci yeneen communes yi nga xam ni ñoo ngi ci biir Sénégal yëpp ñu inspiré wu ci loolee rek ngir wàññi li nga xam ni moo di dajaloo gi ngir gën a mën a respecté li nga xam ni moo di gestes barrières yi El Hadj Moussa Thiam doon joti xibaar yi fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. El Hadj Moussa Thiam ministre daal di ci nag yokk ne nag liggéey bi nga xam ne administration territoriale bi def nañ ko ci wàllu woowu daal na koy rek euh, rafetlu waaye itam yaatal bi ñu yaatal liste yi ba commune yi ci des yëpp daal di ci jot ñu teewlu ay kàddoom ba tey Alaaji Moussa Thiam. nga xam ne état bi moo ko bëgg jox askanu Sénégal ci toll lu toll ci un million de borom a leen président de la république Macky Sall jël décision bi def wax nañ ko dund gi mi ngi toll ci ñaari sàkku ceebu cinquante kilos muy cent kilos fukki litre dawlin fukki kilo suukar fukki kilo maanaam pack alimentaire ak saabu boo xam ne paquet saabu mu ngi def juróom-ñetti doon ci saabu fukk ak juróom-ñetti doon ci saabu suñ ko doon xëy ma maanaam ci ay koppar day nekk fukki junne ak ñett ak ñaari téeméer ci ay koppar du ndaw lu rëy gis ngeen ñun luñ doon ragal ci jëkk ci lu jëkk waroon tànneef bi parce que tànneef bi wax nañ ko ñaar fànn la bu ci jëkk mooy ñooñu nekk ci ressource nationale unique boo ko xam nañ ko jox nañ leen ko ñu caytu lu ci yoon ay doublon wala ñu ci bindu ñaari yoon ñu dindi ko lu ci réer ñu dindi ko lu ci nekkul ñu raxas ko ba mu set wecc loolu waa ginnaaw lay si nañ ko ba mu mat sëkk ñu ko set mooy sous comité de ciblage ñëpp nekk ci askan bi nekk ci citoyens yi nekk ci chef de euh, maanaam les organisations communautaires de base nekk ci société civile nekk ci opposition nekk ci ñëpp nekk ci ñu bokk ànd nekk benn tànn ñu nga xam ne ñoo ko yelloo jii nag gis nañ ni maanaam joxe bi mu ngi wax mu ngi tegu coon ci lu ñu gis jafe-jafe yi nga xam ne feebar bi indi tout le ciblage c'est l'administration territoriale les commissions de distribution c'est sous leur supervision donc Si aujourd'hui nous avons constaté que la distribution se déroule dans les règles de l'art, c'est parce qu'il y a un encadrement approprié et adéquat. Et cela, en tout cas, c'est pour tout le mérite de l'administration territoriale. waa ñu daal di nag euh, dikk ci entreprise yi nga xam ne nag euh, ñu ngay daal di sax laaj ndax euh, ci wàllu Covid 19 bi dinañ mën a rek fay seeni nag payoor ni mu waree loolu nag ay diggé am na ci waaye nag assurance bi des na ba tax waa CSA ñu ngay daal di nag sàkku teg ab comité boo xam ne mooy daal di càmbar situation boobule nee ñu nag lii di tiitaange gi gis nañ ne daal ci secteur yu bari daal di na koy laal Elimane Diouf mooy secrétaire général bu CSA ñu déglu ko. ak Adja Aïssa matérialiser ay ay mesures pour que entreprise yi accompagner liggéeykat yi defal na leen ay facilité ñun CSA liñ def mooy bi décision yi tombé dañu mettre en place benn comité de suivi comité de suivi boobu nag mooy saytu au niveau des entreprises yi nga xam ne concerné nañ nan la ñuy euh, dundee mesure boobu euh, secteurs yi nga xam ne ñu ngi leen di recenser am na ci ñoo xam ne Euh, am nañ assurance que dinañ leen fay soixante dix pour cent mois d' avril bi nañ leen mois de mars maintenant ñenn ñi jusqu'à présent tey le vingt huit confirmé guñ ne dinañ leen fay soixante dix pour cent de salaire euh, état boo situation boobu la ñuy compiler ni fii euh, fin de semaine pour xam réellement yan secteur ou yan entreprise ou secteur en difficulté yi ñoo respecté wul mesure secteurs yi gën am jafe-jafe yaakaar naa tourisme ci la bokk hôtellerie euh, restauration ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi dépendre woon ci euh, euh, zone zone touristique bi je pense que ñooñu entreprise yooyu yëpp dañu tëj donc ñooñu ñoo gën a am jafe-jafe pour respecter mesure bi mais comme gouvernement bi defal nañ leen ay facilité yaakaar naa ne bu fekkee ne confirmer nañ facilité yi ñoom ñëpp war nañ mën a fay au moins cent dix pour cent mois bi maintenant ñu xool ak de mois passé aussi quelles sont les mesures yu ñu mën a jël euh, ci biir entreprise nga xam ne am nañ difficulté transport bi ci la bokk transport aérien transport interurbain yi les Tata les autres même service yi nga xam ne comme euh, Dakar Dem Dikk la état bi promettroon na ne dina jël en charge dina leen accompagner waat parce que mu ngi utiliser seen Euh, Ziguinchor foofu tamit euh, filière yi aju ci wàllu mango bi ak euh, darkase gis nañ ne producteurs yi ñu ngay daal di nag ragal ñàkk koo jaay ndax mbirum Covid 19 bi président cadre régional concertation rurale bu Ziguinchor mu ngay yëkkati ay kàddu la mu bëgg nag ñu muy daal di teel a artu nit ñi Ziguinchor benn Michel Kanfoudi gannaaw seen production bi nga xam ni demeewul noonu atum ren ji fii ci diwaanu Ziguinchor filière mangue ak filière anacarde moom moytuwul ci sukuraat la jëm te li ko waral du lenn lu dul Covid 19 bi nga xam ni mooy lëmbee réew mi fii nag producteurs yaa ngi ci njàqare bu méttee métti buñ sukkandikoo ci kàddu président cadre régional de concertation des ruraux Aziz Badji. On est déjà en soudure. L'hivernage dernier, la productivité n'a pas donné en culture Et quand vous observez la productivité de nos anacardiers et de nos manguiers, vous allez vous rendre compte que ça n'a pas donné aussi. Le peu qu'on a sorti de l'hivernage en riziculture, la campagne 2019-2020, on pensait combler ce déficit en commercialisant nos noix d'anacarde. Le confinement a fait qu'il n'y a pas d'acheteurs d'anacarde. Et quand on ne va pas vendre nos mangues, je dois vous dire que la crise la plus profonde économiquement des exploitations familiales sera ressentie cette année plus que ce qu'on a vécu en 2008. producteurs nga xam te ni ñoo nekk ci filière mangue ak filière anacarde faaw nguur gi jàppale leen bu nu sukkandikoo ci kàddu président cadre régional de concertation des ruraux Aziz Badji yokk ci di ñaax nguur gi mu def ko nu mu gën a gaawee. alors je pense que il y a de peut-on donner à l'agriculture pour booster un peu l'économie familiale au niveau de nos de nos terroirs. ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor benn Michel Kanfoudi pour Sud FM. Euh, benn door dooraat li nga xam ne mooy njàng meek njàngale mi euh, nga xam ne ñeent fukki fan ñeent fukki fan ci weeru mai bi lañ ko appaloon ministère bi ñu dénk éducation nationale euh, jamono ji nag waxagu ci waaye nag acteurs yi ñu ngi daal di nag def seen i njàngat ngir daal di xool ban dogal lañ ciy daal di jël kuréel googu di CNC nag mooy syndicat inspecteur éducation nationale yu Sénégal la ñu daal di nag gis mooy nguur gi na daal di fexe rek ba bañ rek yàkkamti matuwaay yu war yëpp mu jël ko ba noppi secrétaire général national ba di Alcantara Sarr ñu déglu ko ak Mame Diarra Da Silva. réew yi nga xam ne fu mu nekk nii ñoom ñooy envisager reprendre jàng beeg jàngale bi wala commencé nañ ko sax dañoo tëj seen euh, réew def confinement euh, ci bëccëg bi ak ci guddi gi. bañ ci génnee nag fu mu nekk nii ci la ñuy rep la ñuy envisager reprendre école yi ak établissement yi jàng bi ñun nag defuñu état boobu mu doon lu am solo lu ñu war a bàyyi xel beneen mbir mi mooy spécialiste yi euh, dañ ne ñoom piggu piggu propagation bi maanaam feebar bi euh, bu dee ba piggu doole mi ngi war nekk vers le mois de juin euh, donc yaakaar nañ ne bu mënuñu xalaat ubbi école yi ci première vague bi il faut ñu xaar peut ba egg ci pic bi. foog nga xam ne foofu lay wàcce foofu la mbir mi di wàccee dooleem di gën a wàññeeku wala ñu war a mën a envisager waat ubbi école yi ak établissement bi euh, d'autant plus que li nga xam ne moom la ñu perte ci quantum horaire actuellement mi ngi situé wu autour de deux et que examen yu premier semestre yi def nañ ko euh, composition premier semestre yi moyen secondaire def nañu aussi premier trimestre deuxième trimestre au niveau de l'élémentaire te bu ñuy ubbiwaat école yi tamit ñu envisager faire ko par vague Euh, maanaam première vague bi doon classe d'examen yi deux trois semaines après mu doon les autres classes intermédiaires euh, troisième point bi moom mooy que bu ñu ubbiwaatee école yi nañu jàpp ne euh, xale yi tamit ak enseignants yi dinañu représenter environ quatre millions de personnes ñeenti millions ay nit yoo xam ne dañ leen di regrouper ci benn espace te xale yi ñëpp xam nañ ne euh, ñoom souvent c' est des porteurs asymptomatiques maanaam mun nañu affaire du feeñ seen euh, du feeñ te dañ koy transmettre aussi d' une manière euh, très très très mu doon loo xam ne war nañ ca bàyyi xel beneen mbir mi mooy enseignants yi dañoo dispersé wu actuellement. nekkuñu ci gox yi nga xam ne fa la ñuy liggéeyee beneen mbir mi nga xam ne moom mujj considération yi moom mooy que test massif yi defuñu ko Sénégal donc ñu ne nag am na ay préalable yoo xam ne il faut ñu respecté ko pour mën a envisager waat ubbi école yi mooy enseignant bu nekk ak apprenant bu nekk élève bu nekk ñu testé ko geste barrière yi ñu fexe ba classe bu nekk ñu toj ko ba am ay groupe yu ndaw yoo xam ne dinañu permettre ñu am benn élève par table bon enseignant bu nekk ak élève bu nekk am masque ñu interdire regroupement yi ak réunion yi au niveau des écoles et établissements tëj café yi restaurant yi devant chaque classe et devant chaque établissement ñu def fa benn lave-main pour permettre de garantir sécurité yi Euh, dañ koy door rek dogal bi FIFA daal di jël ci ñi nga xam ne ñoo looru ci wàllu Covid 19 bi ci wàllu nag euh, tàggat yaram nee na dina daal di fay ñaareelu euh, tranche bi nga xam ne nag fédération yi la koy daal di nag jébbal nee na bi yoon nag critères yi ñu tegoon dañ ko daldi di nag dindi kuréel googu nag jiite football bi àdduna wërngal këpp fédération yi nga xam ne loru nañu ci wàllu Covid 19 bi la ñu bëgg rek jébbal ab somme bu war a toll nag ci ñetti téeméeri millions ci nag directive mu joxe. waxee moom FIFA maanaam digle yi e koppar gi foofa lañ koy daal jëfandikoo bu ñu sukkandikoo ci euh, njiital fédération bi fii ci Sénégal di maître Augustin Senghor ñu déglu ko Kalaaji Malick Ndiaye. waaw xaalis boobu yegseegul euh, yegseegul FIFA jël na ndogal bi semaine bi rek la ko doog a jël mais après dina yeneen parce que fédération boo leen envoyé xaalis. Euh, service financier yi il ñu taxawal euh, procédure yi def virement yi virement yi léeg dina jël ay euh, benn ay ci ay bés wala ba sax ñaar ci ay bés balaa mu yegg si dëkk yi donc dara yegg seegul mais annoncé nañ ko décision bi ndogal bi conseil de la FIFA jël nañ ko donc ñu ngi leen di déglu di xaar ba ñu saisir suñu service financier yi wax nañu ne def nañu virement bi donc bu weesoo loolu may xamal rek ne montant boobu dafa nekk montant boo xam dañ ñu ko daan tam jox mais euh, ci ay euh, anam yoo xam ne dañ tegoon ay critères maanaam euh, am na ay poñ yoo xam ne i foog nga atteindre ko pour que ñu mun la ko jox cinq cent mille yooyu donc président FIFA nag ak ñi ko wër décider ne bii pa dañuy teggi critères yooyu yëpp yónnee ko fédération yi maanaam sax ñu anticiper ko maanaam fay ko balaa waxtu bi di jot lépp ci faciliter rek club yi pour ñu mun a Euh, ak club yi ak euh, fédération yi pour ñu mun nooyi tuuti parce que xam nañ ne euh, Covid 19 bi tënc na leen ba nga xam ne jafe-jafe mun na lor fédération yu bare rawatina nag bànqaas yi nga xam ne ñoo nekk suuf nga xam ne mooy club yi nga xam ne sans ñoom football du am donc loolu may wax rek ne bu fekkee ne yàlla def na mu yegg si dinañu xool si comité exécutif mi naka la ñuy def. ba ku nekk gis sa boppa fédération am na jafe-jafe euh, club yi am nañ jafe muy club professionnel muy club amateur yi ak yeneen bànqaas football dañu xool daal nu mu gënee ñu def ko mais mu nekk ci anam yoo xam ne euh, intérêt général ni ñu koy waxee njëriñu ñëpp lay nekk. alliance nationale des communauté pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS mooy taxaw ci wetu ministère de la santé ngir lii di coronavirus bañ a law ci biir réew mi. alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS di ñaax mboole sem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñu sàlloog dogal yi nga xam ne waa kër docteur jox nañu leen ko ak ministère de la santé mu di ngeen di raxas seeni loxo ba mu set ak ndox ak saabu ak jëfandikoo gel hydroalcoolique bu ngeen di sëqat ngeen jël mouchoir te bu ngeen ci noppee ngeen sànni ko ci pollu mbalit wala ngeen lem seen conc loxo ngir sëqat ci biir bu leen joxe loxo te it dee leen moytu lii di dajaloo ay mbooloo bu ngeen yëgee lu ngeen miinul seen yaram lu mel ni coono ci noyyi sëqat ak yaram bu tàng ngeen woote ci 800 00 50 50 te du ngeen ci fay dara. ANCS. L'expertise communautaire au service de la santé. ANCS, l'expertise communautaire au service de la santé. Alliance nationale des communauté pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS moo leen di may. wax sa xalaat. Euh, ñu daal di koy nag euh, door ak nombre record boobu nga xam ne nag nemmeeku nañ ko euh, ci wàllu nag corona bi bésuk tey gi waaye itam li aju nag ci wàllante gi rawatina kaa ba xew ca Sédhiou ak na mu daal di nag gaawee nañuy def ba kaa communautaire yooyu ñu koy daal di nag gàttandu wattandiku wàllu wàllante bi ba ci sax distribution li aju ci aide d'urgence yi 88 628 98 98 ñu jël ku jiitu ci ligne bi allo. allo asalaamaaleykum wa salaam sëñ bi. oustaz Adama man la Chérif. Chérif ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. Mhm, maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa mhm. allah azza wa mu wàcce jàmm ci Sénégal aar Sénégal aar Amérique mhm. aar adduna bi yëpp ndax affaire yi fi mu nekk nii mi ngi tax. te vraiment. je vois que ni liggéey bi des na. te loolu ku ko waxul rek danga dama yaakaar ni faraloo gouvernement bi. parce que man li ñu wax li professeur Seydi di wax. damay wax ni président Macky Sall. na def lu mu mën mu protéger professeur Seydi. Abdoulaye Diouf Sarr nu mu mën na protéger professeur Seydi. parce que politique ak xam-xam. ñoom dañuy def politique kii xam-xamam lay yor fact lay wax waxul ci politique mais luy jëriñ réewam politique yi tamit luy jëriñ seen réew mais beneen anam lañ koy defee donc borom xam-xam kenn buñ leen muselé buñ leen muselé nañ leen bàyyi ñu wax seen xam-xam muy Amérique muy France muy Londres muy Germany muy adduna bi yëpp les pays développés projet wàññeeku parce que ku nekk sa liggéey ngay def dañ leen bàyyi ñu def seen liggéey seen liggéey moo nekk ñu wax fat moo nekk li nga xam ni que moo am hôpital de Ziguinchor amul réanimation loolu dëkk la Ziguinchor muy Casamance yëpp amul benn réanimation bu ko nekk bu jag hôpital euh, euh, ki bu nekk euh, centre de santé bu nekk Touba mar ki Daaru Marnaan hmm. population yi te noonu ñu ñu ne ñoo bañ malade dafa dugg que ñoom ñoo tabax seen centre de poste de santé bi ñu wooyee état bi pour mu ñëw def fa li mu fa war a def dañoo lànk ah population bi bu doon bu ñu ñëwoon patriote ma laaj fa dugg loolu seen faillite la nañu reconnaître loolu dañu bind ko te lii bu ñu taxaw ci ay lamba ki football ak yooyu nañ ko def quatrième degré ah ñu investir ci éducation bi investir ci santé bi parce que loolu mooy réew réew mënoo ko tabax di commencé ci làmb ak mënut a dem you know dañ leen delloo ci suñu xel am nañu ay borom xam-xam yu ko mën a def dëkk yi nga xam ne ci en vingt ans développé nañ seen rëcc trente ans ñooñu gënul ñu ëpp ñu xam-xam dañ leen jaar foofu ñu jaar ñu développé suñu réew yi bàyyi caaxaan ay foo ak i fecc ak i football ak i làmb ak i ok euh, matal na ñu fàttali waa bitim réew ñoom 33 841 22 33 la ñuy jaar jotaay wax sa xalaat Alassane ñu jël keneen ci ligne bi allo. alo Adama Ndione. waa Futum na waay. waaw mi nga rek. Baye Laye moo nekk ci buum bi. mu lay fay waa di ziar saa si mbub nuyu bàcc siis. Hmm. Adama rek di wax ne président Macky hmm. mu ngi def lu ko war. Hmm. mbir bi ñëpp la bet États-Unis googu ñoo gën a sonn France ñoo gën a sonnu tey France tey dama leen déglu tey seen ensemble bi tey dafa jaxasoo tey ñu ne élèves yi nañ jàng ne élèves yi dañuy jàng affaire bi sikkim la dafa lakkandoo dafa wër adduna du dëgg. adduna bi feebar bi ñëpp la bett président Macky Sall mi ngi protéger Seydi mu ngi protéger Babou Abdoulaye Diouf Sarr du réero ak ñoom lépp loo xamante ne laaj nañ ko rek ci ay moyens même professeur Seydi bu ne woon nañ def confinement président Macky Sall daf koy def du dëgg ba médicament boobu nga xamante ni ma ngay feeñ ca bon fële Madagascar di def ay bon résultats yi ñu ngi baax foofu noonu président def na commande bi bu ñëwul tey dina ñëw suba te yàlla def na sax am na benn bon benn baykat boo xam ne koy bay foofu ci Tivaouane loolu yëpp mi ngi feeñ kon li ñuy wax mooy ñu respecter barrières yi ñu respecter mesures yi nga xamante ni moom la médecin wu santé yi teg corps médical bi maa leen di tàccuwaat bu baax a baax a baax nelawul tuñ yëndoolul tuñ ñun ñoo des population yi population yi ñi nga xamante ni Sénégal yaruwuñ ñoo ëpp ñu yaruñu ñun loolu mooy suñu jafe-jafe Adama lu dëgg da ngay génn mel ni dara xewul ci quartier yi nga xam dafa populaire ay mbooloo yoo xam ne dañuy toog mel ni dara xewul nañu toog ngir yàlla seen biir kër yi ak seen njaboot bu nekk na togg sa njaboot ba liy jeex lii yàggul ñu muñ ko mais yii ñu ngi koy xeeb mi ngi gën a dem président Macky Sall toogul taxawul mi ngi def lu mu mën lépp loo xamante bu ko defee mais bu doon 1000 milliards président dina ko génne pour li mbas mi ñu tàggoo ak moom. ñëpp a tënku instant bi nii muy Adama Ndione muy yow muy man ñëpp tënku kenn dematul fenn man góob sax ni booy yi dinañ jàng ndax suñu doom yi am 5 ans 4 ans mënuñu protéger seen bopp man sama doom même bu ñu ubbi woon école du dem école du dëgg kon gars yi foog ñu jàppale état bi. jàppale sunu bopp ñu bàyyi mbiru politique fii moom campagne gëm naa ne amul élection du am 2024 du am 2022 nañu xam loolu nit ñi yàlla may ñu génn ci lii lii mooy jafe-jafe bi taluñu ceeb ñu dara. Euh, loolu gis-gisam la ñuy xool keneen ci ligne bi daal di koy teewlu 88 628 98 98. salaamaaleykum. Euh, waaw waaleykum salaam. sëñ Adama ñu ngi waaw ñu ngi lay delloo ziare. Ah, la ñu am. amuñu passeport diplomate amuñu leneen fu ñu mënti amit Sénégal la ñu bëgg Sénégal jeex rek tey bu fi doon def lu baax yi dañ naan lii moom moo ko fi def wala mu taxaw ci taxawaay bii waaye ñi am na ñoo xam ne dañ koy réeral surtout nag yenn ustaas yeeg yenn imaam yi ko imaam yi nga xam ne ñoo dajaloo dem ni ko ñëwal tëj jàkka yi ñooñu ñëpp dañ koo réeral ak ustaas yoo xam ne Jibi Saw nag yow bokkoo ci ak Iran Ndao ak ustaas Aliou Sall ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ndax taxaw ngeen seen taxawaay bu am solo tegal sa diine fee naafila nañ leen koy def ci kër nañ leen koy def ñu dajaloo mbooloo mi te yow oto yi ñi ngi dajaloo ci biir oto yi yow oto yi li nga doon wax nañ nañ yemale tata bu daan yeb eh, vingt six personnes ngay treize personnes la yeb te foofu sax ñu doon taxaw banc yi rek laa wax léegi yow fat mbooloo boo xam ne xam fu toll mbooloo boo ba nga dem ci suuru bur yi noonu nga dem ci marché yi feneen ak feneen noonu amuñu transport lu leen yóbbu yow nga ne dangay daw feebar bi ñoom feebar bi ni ñu ko organisé moo baaxul ndax niñ ko organisé day yokk feebar bi te duñ ci man dara nañu wax ak ñi ñu war a waxal wax ak kilifa diine yi ñu jox kilifa diine yi cër kenn toog ci sa plateau rajo di yedd kilifa diine yi naan jubóowu ñoom nañ toog waxtaan ak nañ def nii kilifa diine yëpp benn lañu ñu ngi waxtaan ñu ngi ku ci xewle ñu ngi dem bu leen topp ci nguur gi li leen li ko neex rek ba tax ngeen di xas kilifa diine yi jël suñu diine ji moxoñ ko feenaan nii lañu war a jullee nii lañu war a jull lañu war a def kenn warta eh, julli mbooloo di ko gé te julli mbooloo dafa eh, moo moo gën a baax julli mbooloo li suñu borom wax xanaa ñun ñu jàngul sax xam nañ ko moo tax jiitu saw mi ciy wax chaque jour ñu ngi koy sant di ko gërëm na dimbali askan wi génnee oto yi mu nga xam ni dem dikkam yi mu génnee ko génnee BRTM yi jox ko nit ñi ñuy dem ak a dikk wala xaalis bi nga xam ne moom la ko nit ñi jox mu jox ko Sénégal yi Sénégal yi toog seen kër am nañu tooge seen kër kenn bañ a génn ci ñu dimbali nit ñi ci ay masque waaye cent francs bu doon jar masque am na ñoo xam ne jamono yi amuñu ko am na jamono yoo xam dañ daan liggéey am seen teraanga yi dem ak a ñëw ñaar dërëm ko bu ñu xëyee dañuy xëpp seen ci nit Hmm, ok eh, dafa mel ni matal na moom it Alassane ñu xaarati keneen jël ko allo. oui salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi. Adama ñu ngi lay ziar député Moussa Cissé. ñu ngi lay delloo ziar waaw Cissé. Euh, Adama naa léegi ministre bi. Hmm. mu wax séddale bi wax séddale bi nga xam ne moom du commencé séddale ceeb bi mais Adama dama bëgg euh, maa ngi nuyu suma jigéen boobu Seynabou Seck Seynabou bu fekkee ne yaa ngi ak dig jëlal nga ma wax la jama gaajoon lan la fa ministre bi wax ne man la ñuy séddalee Adama jama gaajo mu ngi di population bi ñu ngi nekk vingt deux mille six cent soixante douze personnes population ba. am am deux mille six cent quatre vingt onze borom kër. léegi état bi wax ne moom day séddale ci jamono ak na wax ne na séddale dégg nga bi ne la ñaari saako ceeb. Euh, dix litres euh, ak saabu dégg mu wax ko. bu ñu séddalee bu ñu séddalee nañ leen jox. mille cent borom mille cent trente personnes ñoo ko fay am du borom kër ñoom seen séddale bi. séddale wuñ pour borom kër dafa am nit ñuy ciblé. ñu ciblé mooy bourse familiale yi bourse familiale yi ñoom lañ ciblé ñoom lañ gën a jox ndimbal bi ndax ñoom ñoo war a ñoo ñiy fay bourse familiale ñoom ñoo war a jëkk a am ñooñu aadama boo leen boolee ak recensement bi nga xam ne moom la état bi defoon état bi dafa defoon recensement wala wala APR dafa defoon recensement avant élection yi wax ne ñoom am nañ am na ñi nga xam ne amaguñ bourse familiale dañu dolli bourse familiale pour ñu wooteel Macky Sall loolu moo am boolee aadama ñi nga ñu ngi fayeeku tey bourse ak ñi nga xam ne ñoom lañ dig bourse familiale nekk na huit cent vingt neuf personnes soo ko dindee ci mille cent trent personnes dafay des trois cent un ñu ne nag commune bi commune yi jëma aju yëpp trois cent un personnes ñoo ko fay am waxuñu borom kër ñoom seen séddale bi du séddale borom kër séddale ay nit la ndax bourse familiale ñu ko am ñëpp duñu ay borom kër aadama séddale bi ma lay wax ne fekkee ne am na mille cinq cent soixante et un borom kër dinañ ñàkk duñu am dara lu ñu am benn kilo ci commune bu jamagaajo loolu du séddale ñu ne nag ministre bi bu fekkee moo ñàkk a séddale mille cinq cent yooyu nga xam ne nar ñu am benn kilo kenn ku ne nañ la jox benn saako jox ko benn saako ñëpp am waaye mënuñu jox ñii wàcc ñi aadama noo mën a comprendre. benn jëf si sëñ si Cissé loolu di jàngatam ñu xaar keneen ñu jël ko ci ligne bi Alsaan allo allo salaamaaleykum allo. allo waaw 88 628 98 98 dafa mel ni déggante bi jàppandalul ah waaw kon waxtu wi daal nañuy dab ñu daal di ko fay yemale eh, xibaaru guddi gi nañ ci dellu siwaat gën koo yaatal ñu jéggalu ci nekkoon ci ligne bi jaajëfal ñu woote eh, ci kanam tuuti sud éducation buñ ca noppee 18h ak eh, Marie Rosalie Ndiaye ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab Alassane Wade moo fare woon ci sottandikukaay bi mucc biti yi ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën a fekk tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë